So bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. ñu gis ne seen seen bii di doomu buur suñ ko dugalee même pas 24 heures nombre de vie day ëpp nombre d' abonnés. loolu dafay tegtal ne ñii seetaan vidéo bi te abonné wu moo ëpp ñi abonné. ma bëggoon yow ñii di seetaan vidéo bi balaa ngay jàll bu fekkee abonné woo nga abonné bés cloche de notification bi abonné bi nag c'est gratuit doo ci fay dara te dina tax tamit vidéo bu ñu dugal duñ ci teel a jot. te it dafay yombal suñu liggéey te xam ngeen ne seen kóolute yéen mooy suñu mbégte ñu waa Sango Gouma TV. chers internautes Linguère Fatima vous remercie de votre compréhension. Suivez la chaîne Sangoguma TV. Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV. La scène qui vous ressemble. La chaîne qui vous ressemble. La scène qui vous ressemble. Et vous rassemble. Et vous rassemble. Et vous rassemble. alaikum Sénégal Assalamu Adina Tay ñi ngi tok ak Serigne Abdou Lahad Diop Kéemaan mu nekk médecin traditionnel bu ñëpp rañé ci Adina Sëriñ Abdul Ahad Diop Diop Kéemaan di ki leen di gunge ci saafaraal leen mboolem seen i jafe-jafe yow mi nga xam ne dangaa bëgg ku la seetal seet bu set te leer nañu dawal gaaw nga seet si ko yemul ak yow foofu bu la seetalee ba noppi itam sarax bu ca war mu daal la koy génneel moom Sëriñ Diop Kéemaan kon lépp loo xam ne lu lay aar la lu lay musal la mi ngi ci alxuraan nun nag am nañ ci tegtal yoo xam ne incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam képp kuñ ko defal yoon woo sóobu incha allah rabbi ci kàttanu yàlla te itam yàlla mu ci waay mu ci wàllu kaaraange. Euh, góor goo xam ne da nga da nga bëgg euh, sa awra gën a yokku wala jigéen joo xam ne dafa bëgg bëgg bëgg lu mel ne ween wala fes wala yu demee noonu loolu moom dañ ko jàng dañ jàng gëstu ko jàngi ko itam ci réew yu uute ba suñu borom bi am jox jox ñu ci ñu ñu door koo ñu ñu door koo jëf. waaw ba tey sëñ bi dégg naa ñu ne jigéen gi doon sëy ci bërëb ba pare jóge fa ba pare bëgg fa delluwaat moom loolu moom dégg naa moom yaa ci man moom. bépp jigéen bu jógee ci kër ñu wàcc ko mu mu mu dellu bëgg a delluwaat a delluwaat foofu wala ku nekkoon ci place jóge fa bëgg faa dellu kooku moom damay wax man man maa ci man ku dul man bari nañu xam ne la leen la tax ñu jëlee woon ci kër ci kàttanu yàlla ko mbaaxam maa leen fa delloo ci kàttanu yàlla loolu moom def nañ ko budul benn du ñaari te lu ñu la lu ñu foor la suñu lu ñu foor la itam kooku ku dul man xëccoo moom yàgg nañ cee ñaan te itam yàlla suturaal nañu ba képp kuñ ci mas a ñaanal yàlla defal na nga am ndam waaye képp koo xam ne da nga jiitu incha allah rabbi ci kàttanu yàlla am nañu ñaan yoo xam ne sangat boo xam ne bu ñu la ko defalee incha allah rabbi ci kàttanu yàlla yow moom kenn mënut fexe ba duñ la gis ci kaw duñ xam sax fan nga jaar. bayre moom muy ubbeeku ci ci wàllu wala kuy def commerce wala kuy way wala kuy tëgg wala kuy wala kuy jàng yooyu moom am nañ ci ay tegtal yu yu yu wér yoo xam ne si ne fu ñu la ko defalee incha allah rabbi ci kàttanu yàlla foo ne ñu fekk la fa mosoo gis ku euh, maanaam euh, ku tëgg tama wala tëgg sabar. te te te mbooloo mbooloo wàll si wuñ ña ña ñëw kan moo leen di indi mas nga gis mbedd mu daanu ñu woo ay tànn ñëw leen ngeen lekk ak tànn yi ni ñu soree ci kaw noonu nii am nañ bari bari yoo xam ne bu ñu ko defalee nit ni tànn yi di xëccoo nit ki dañuy xëccoo nit ki incha allah ci kàttanu waaw ba tey ku bëgg tukki. waaw bëgg tukki day ñaare nit bëgg a tukki ba pare amul moyen kooku tam am na ñaan yoo xam ne bu ñu la ko defalee euh, xaatim bi biñ leen tëggal ci avion lañ koy def nga fexe ba am suufu réew ma nga bëgg a dem ñu defaral lañ la ci defaral nga jox ko nga nga fexe ba am picc muy naaw muy picc voyageur yi nga fexe ba euh, dugal ko ci biir saafara si picc mi naaw nga sangoo saafara si incha allahu ci kattanu yàlla réew moom moom incha allah bi ci kattanu yàlla si tànk dana fa tege. waaw moom mi ngi Touba mi ngi Dakar waaw maa ngi Touba maa ngi maa ngi maa ngi Dakar donc nag bari na fu ma daan dem waaye dama wàññi woon dem yi daal. waaw sëñ bi ku bëgg a jokkoo yow naka lay def. waaw ku si jóg a jokk ak ñun da ngay jokk sunu ay ndaw rek da ngay jokk sunu ay ndaw man nga woote ci 70 856 37 38 boo ci boo ci wootee rek incha allah rabbi ci kàttanu yàlla da nga jot sunu ndaw wala itam nga jot nu bu boobaa itam lépp loo bëgg xam rek incha allah rabbi danañ la ko leeral ci sunu mbir incha allah ci kàttanu yàlla.

maas sama doom te dara warulu ko lu dul Mamady mi nga xam ne sama doom la joo xamante ne juruma ko sama giño waaye doomi xol la ndax ndeyam da ko fi indaale te déggaloon ma lool yar woon lool jiboon lool kon bu fi jógee bàyyi ko ak man ma di ko saytu mu am ay xarit benn bakkan ñu nekk fi dem ba ñoom ñuy réeroo ci seen biir suma sañoon nag loolu jeex kon nag bëggoon naa nga dox ci sa kemtulaay kàttan bu ñëwee ne ko waxtaan na maag maas ba maas moom fas yéene lu mu jàppoon bana ko lu ma ŋànkoon rek yàbbi na ko nañu melaat ne mburóokum soow nañ meloon ndax seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel te bi fi maama di nekk ñoom ñaar nii lañ defoon daawuñu réeroo ci dara loolu nag lu koy yàq mhm. duma ko fekke mhm. te yow mii di magam waroo ko fekke mhm. ah saa de li nga wax ni dafa wéer ndax yaa ñu bokk njaboote ñun ñëpp tànk yi nga dox ba ñëw fii nii dama koy rafetlu incha allahu bu ñëwee. dana mel ni mi ngi woon toog fii. baax na dinaa ko wax lépp. incha allah dafa mel ni maa ngi seen xon gee. Uh-huh. te xon gee faaw sangu. Uh-huh. ci xiin waa ngi nii. Uh-huh. di waaj a uh, ñaringaan. dëgg la ngoog di. di dal. am munoo ngaa toog ba si kanam. mu toogee damay tawti moo fi taw ubbee nag. <laughs> munoo ngaa toog ba si reer rek. sa cere ji moom moom moom moom waroon naa ci am aw wogg. ah munoon ngaa xaar cere ji de. waaw <laughs> ah, tooñ nga ba noppi. waaw <laughs> waaw kay. na ko dégg. dina ko dégg mhm. ginnaaw ay jàmm. ginnaaw ay jàmm. allah ginnaaw ay jàmm. waaw maa ngay dem. ok gone yi jaaxal ma. gis nga tooroodo ci kër yi yo da xam nga ne do man xamoon naa ne bu sëyee du fa yàgg ndax gis nga buur daf koo yàq ci kër gi do du fóot du passé <laughs> ta baayam gis nga nim ko def ci kër gi ñun ñooy def lépp toro def dara ah bettu ma woon de du fóot du def dara ah, ah doy na waate déggoo li ma la wax ah man dama jaaxle looy jaaxle ah, ñëw toro di ci kër gi yow daal xoola man bettu nee naa la tooroo da ñëw. waxal ndànk. man kay ndànk ndànk wax. da nga indi wure bi ñu wure. ah, ah ñëw ci kër gi man jaaxal na ma de. duma ko lijjanti. Hmm. ndax maa loolu te am na. Hmm. ñun nañ wure da nga wax ndànk. yow dama nga jëli doje ñëw ñu wure dañ da nga di wax ndànk. naa wax ndànk. dama nga jëli doje. ma dàqati la. Ah, ma def la na ma la daan def rek. teg naa fi. dal fii. faw nga dal. dal naa fii. waaye doxal ah. dal naa fi gànnaaw bi dox foo nga dox gànnaaw bi mm-hmm. boo xaaj nañ xaaj caaxoon nañ xaaj de waaw daal fii kaare naa la xàccal doxaatal may ma dig déedéet may ma dig dig kay du ma may naa la may dig yow doxal waaw jël may naa dig déedéet bëgguma doxal dal naa fii daal fii faw nga daal dal naa fii dal naa fii faw nga daal salaamaaleykum maaleykum salaam dal naa fii Biram ale doxal Salimata Salimata na def ñoo ngi sant bu baax carrément ale Biram dama bëggoon ñu waxtaan tuuti rek soo ma ko mën may ale am na ma ko mu toog Birama mhm. ale man maa soxla woon tey ñu toog ñu weccante ay xalaat ndaxte booy gis lu la neex ba gisatuloo ko su say bët di xonq sañ ngaa dem fa nga xam ne boo fa demee ñu raxasale la ko fa mhm. te yaakaar naa ni sama raxasukaayu bët fii la ci yéen ñaar ñii mhm. ale man xam naa ne def naa xañ na waye nak sama def wut dama bëgg sumay wax ak yow nga mhm. déglu ma bu baax nga xam li tax ma lay wax ndax ab diire ngi ni demba rootalatuñu lotunyung, mhm. tuñu mbam mi té nak loolu nek luma jaaxal lool ci mom ma yaakaane nak sañ ñew fi fii ci yéen yuuxu ko fi ngeen xitali mata yalla rek tax ngeen waxtaan ak maam moom rek la bëgg ba xam lan mo waral lool mhm. Salimata Biége. naam ale yaq nga ko ndax loolu nga fi lim yëpp yaa ko xañ sa bopp xañ ko say wajur yow ma bet ndax Demba fi ngeen jaar fépp adunun na àdduna du neex ba nga def ko lii nga ko def waxuma la moom de waaye man mii rek damaa sonn ci yow yow da ngaa may noonu lu ñu re waaye nag bu fekkee man la Demba moom du ko dégg xalaatuma sax ale damaa yaakaar ne wol ca digg kër ga la mate waruma de dafa fekk ne yàlla moo dogal ne sutura mi bi may tuut tànkak moom ba léegi ñooy nekk hmm. te nag mag ñi dañuy wax ne lu jëkk ci xol faw mu des ca xam nga lan moo doon gën a ñaaw wala mu gën a métti man nangul ko sëy ba pare te su ma demee ci kër way juróom duma fa def lu baax te duma ko fa wax te nit nag fépp foo ñaan yàlla am fa njaboot war nga faa liggéey ëllëg lu sa njaboot di tekkee lii rek moo waral lii. Salamati Bigué na sa xel daal bu baax dégg naa say kàddu man ngaa dem saxoo doon seet incha allah rabbi dinaa taxaw bu soobee yàlla. jërëjëf Birama dinaa waxtaan ak Demba bu soobee yàlla bu soobee yàlla. baax na maa ngi kër na nga xam ne Demba lu ko laal dina ma la loolu moom bàyyi ko xel bu baax. allez allez tey nag bett nga ma yow ni nga waxee ak selmati bii gi nag. ana nan laa waxee ak moom. te Demba man damaa foogoon ni lii muy defal selmati bii gi yépp yàlla tax. Birama yàlla yàlla bay sa tool. dama lay xamal leen nag gis nga nit lépp lu muy def te yàlla rek tax li feeg yàlla moom tax mu ngi fi Woro dakal jëf ja dem nak su fekke bi mu def yalla tax xam nañ legi bu dee yalla taxut xam nan mak sa suy nan ndox mu tank suukar sa tax birama sa wax ji ngay wax la bëgg nga bayiko yo ale ay ka deug ngeen ale musuma tamel di wax ak yow rek ba wax ji jeex jam faaw dem li wala dem la waye nak baxna dina xam ni may dox ci digënté bi li nga bëgg la du nangu rek nga bëgg jël ké té ko suñ kaw té loolu du mëna nek sanday waaw mas yow de bi nga jógee kër buur ba léegi waxuma dara lo fa jëlee ah man kat mas kër buur dama faa jëlewu dara lu ma mën a teg ci sa loxo yi ndax ne keroog ba ma fekk na fa dag bo ne ñàkk na teggin réew na gàtt nay wax man daal maas naka ma egg diggante bi mu duggee ak bi mu génnee ne ma buur daa fatu daanaka benn la ma tàmbalee wax mu fël ma fël waaw ne ma ca biti damaa jiital jiital ma gurgur ma ba ma génn mu duggaat waa Sanday xanaa danga kaa wax ni man maay tante Mamadou loolu kay wax naa ko ko. Sandañ loolu moo tax ñu doxaleeg yow nii ñu doxaleeg yow ndax umpale woon ni Mamadou ba mu tegee tànkam si digg ëtt boobu si lay taxawee wax leen lépp loo xam ne mi ngi ko doon dund ak yow. moo ne wax nga dëgg de. te Sandañ ëtt buur soo fa dee dugg daa am noo fay duggee Sandañ mënoon ngaa wut sax suusal neexalee ko dag bi ngir mu ànd ak yow siy kàddu. waaw loolu dëgg la. loolu dëgg la de waaye bu dee de Mamadou wax na ko dara dara dara ci man ci ni ma nekkee moom sama gis buur du yomb sama gis buur moom bu dee loolu am na ci moom du yomb moom moom kay moom loolu moom bu dee moom wax na ko ko tam xam xam ko du yomb de xanaa lenn danaa demaat de su ma demee def li ma wax jëm koo neexal yóbbaale cere wala suusal wala dara lo ñom lo xamni ñom da sunak ko soxla su nak bu dem naan te gisuma ko nag ma xam nak kon Mamadou jaar na fa. sanday ndax li nga bëgg wax buur dooma ko wax ma dem eggé koko yow mëno dem yow mëno dem ndax bu fekkee na li ma Mamadou wax na dag ba sama digënté mom lima dund nak mom yow mom sa sa fa wax. te ma bañ ñu dem ñu fexeel la te benn dong nga ci man te dangaa sori ci man baal ma demaat rek su ma eggee lu ma fa am xam ne loolu la waaye buur dinaa jàkkaarloog moom nag maa fàtte su ma la ko waxee rek bay boo nga gëm ma danaa jàkkaarloog buur de te dinaa ko wax lépp la fi ndey Mamadou def ak lam fa defoon foofaak lam def ci kër géeg lépp dama buur dana ko dégg kon kay maa wax lii dégg naa de ndax lepp lo ma massa wax rek tek na sa geut oh, li dañ ko li dañ ci tek sa ko ko wax de danaa dem de waye nak na nga maytu saa bàyyi maan si dara du ko yek man naa am sax su du mo fa fekk dak boba man na fa fekk beneen bo ko xam ne oh, oh, Mamadou wax tak mom mm. xana mom limi la tax la lepp demul ñepp ku ne mu wax la lañ doon dundé man naa am tombé ca koka rek mm. yalla bax Ndela. waaw. man de dama jaaxle tay ah lula jaxal man fuma tollu hmm damay teud sax di gënt may sa Fatima. hmm fuma tollu sama xel day nek sama makay ma koy xalaat. ba xol waye suma la ko ci fel dama def ci mom hmm. xawma nak nan lay def ba wax ko gannaaw nak sama morom bu jigen nga. la wax de bu ma doon yowa a bum jëm kaw ndaxte bu ko lingeer déggee sa nekkeem ci biir kër gi dina metti ci yow ndaxte am na ku fi nekkoon fii maa jigéen la woon la tudd yaroo fii ci biir kër gi sonn lool ci biir kër gi liggéeyu kër gépp mu yor ko keroog bis ba mu demee ba génnee ci kàddoom na dafa bëgg may sa Fatima ci lañ ko tàmbalee finnaal ba mu teng jeum kenn gisatu ko ba ni may waxe ak yow kenn xamul fan la nek yow nak damay bañ lolu dal la suma don yow nga non ndax te lo ci def may sa Fatima de bu don mom rega waye lingeer bu ko dege sa nekken ci bir keur gi du neex ben yo khalatuma may sa Fatima waye linger la khalat wante cofeel du man maa ko teg sama bopp yàlla suñu borom mi ñu bind de moo koy teg doomu aadama damay gént may sa Fatima mënuma kaa gis ci bët te awma lu may xalaat taxul ma bàyyi de lu ma man dinaa ko def lenn rek nag moo ma xaw a jaaxal ndax dama daan dégg ñu nan bour bour lay tak doomu bour lay tak du tak baadoo la lo rek moma jaaxal bobu nag nga warona xam sa bop ta xam ne si ne du yag yag ba nga doon yow yaang may sa Fatima da ngay sonal sa bop rek ba nopi bu ko lingere yegge di nga am ay jafé jafé yo xamne xalaato ko won ci sa aduna bu ma doon yow nag nga teg ko ci suuf bala see bala kaa waa kër gee jot lu ma ci góobe dinaa ko gar ndax sama xol bii may sa Fatima moo ci nekk ginnaaw sa xol tooñ na la lu ci mën a am def ko tekk ak tey bu ko lingeer yëg ndax bu ko yëgee di sonn baax na dégg naa la jër jëf ci kàddu yi naa ci bàyyi xel bu baax su ma sañoon bu suuf sédé nga rëppatal fas wi wat fukki buntu ndax sama kat ci say pexé la nek torodo naam may sa Fatima dégg na li nga wax waaye nak bëgg na nga bayyi xel ni fi ma nek sa bay daf ma fay dig ab diire ngi ni maa ngi fi nekk waxaguma nag dara kon nag sama ngor mayuma may dem ci lu dul ci ndigalam ndax jamono bi def fii ak diir bi fi def daf ma ko war a wax ñaareel bi mooy man doomu buur laa doomu buur dëgg mooy man duma daw te duma ragal ndax tay suma delo fukki buntu ndayan gep da naan dama daw sa bay day am ndam ci man lima sa bay di fi dana ma ko wax suma namé delu fukki buntu te sa bay waxuma dir bi ma def fi loolu deewu de ko ma gëna ndax gàcce la ndax dégg nga ma. ay sa Fatima dégg na la bu baax sa jambar kenn nattableetu su suma sañon ginnaaw man nga doon jël ci ñu àndandoo delluwaat fukki buntu ndax ciow li nar a ñëw bëgguma ñu ne ci da la toro da nam may sa Fatima. lan mo tax kon nga doon daw. may sa Fatima lolu yëpp jall na suma sañon lima la wax. ñu def ko bëgg a jaaru bu mu la tax tiim taal buy bërëx dégg naa nag li nga wax waaye nag bàyyil xel ni ku sa suba leer waroo sonn ci sa tey te yaa fi man yaa fi man saa boo xeexee ñu jox la say dàll dañu lay jay mënoo torodo naam may sa Fatima. sa baay buur Birama Koli ay at la ma ëppalee waaye du la neen fii laay toog xaar ko fii joxuma ndigal du ma dem te bàyyi la xel ni képp ku la bëgg a jël dina daj li ma daj sama fanweeri guddi ya du ma ko fàtte mukk sa baay bu la bëggee nangu dina dugg fanweeri guddi lu ko mooy bakkan dana dess te noppi ngir bakkan des ndax kat sa bu demé ci war waccina na ndax deg nga ma may sa fatima deg na la bu baax bu fatani sama ñew ci sa tab ci sa biir kër ci sama bàyyi la jóge kon bu diiranteeg ak mom bak li lila indi ci man mako ndax ndogal ya metti woon na loolu te dama koo dékku ñaar fukki dooyu buur ak juróom-ñeent ñoo des fii ndaayaan noppi naa ngir fanweer leen du fi toog ab diir ba noppi te waxuñu ma li may doyee deewute ko moo gën ci man ndax gàcce la ndax dégg nga ma. waaw baax na may sa Fatima dégg naa la bu baax maa ngi àgg ci biir. Birama Koli des ci moom fi yabal nee na li ëppoon ci liggéey bi sotti na moo taxoon ma ñëw jébbal la ko jërëjëf sotti si yow ak def si am na mbégte bu rëy rëy ci yéen ndax li ma leen santoon def ngeen ko ma bëgg bu guddi gi soree ba suuf sedd nga ànd ak def si sàkkal pexe kii di Maysa Fatima buur Birama lii yow rekk yaay yow tagg mhm. waaye man def si duma buwoon buur naam waaye dama donn jàmbaar te gaynde ndax xam nga loolu nam sax toogug buur baa doole du ko yërë ba di ko sëllax suuf waaye lu taw fecc ko ku ko fecc sag ndoddu jàmbaar lañ ca gàcc jàmbaar lii laa soxla si jàmbaar góor fit góor njàmbaar góor fonk kàddoom sotti si sama xel ma ngi doog a dal ndaxte lépp li ma bëggoon am naa ko kon am naa mbégte xam na lii ma sumb ndam rek laa ci am jërëjëf. jaajëf Paul Birame Coly borom doole kenn du ko wër ndomba ñu fanaan jàmm jërëjëf.